asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah mercredi 10 juillet 2019 ñu ñëw kiin ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey jàppal sunu lamb yëglikaay ba nag tey daal ba mu xëyee moom way la daw wutali andil ñu kii nga xam ne moo di Lac de Guiers numéro 2 nag mu mel ni fi mu nekk nii dey ah ay mbokk ma ngi koy soññ nag ak di ko puus ak di ko bëmax mu ñëw nag fas yéene dal ci kaw kii nga xam ne moo di Boy Niang mu mel ni kii daal démb yëglikaay bi nee na Balla Gaye 2 Elton Guy gi Sa Thiès ñoom marle kenn desul maanaam géejawaay gépp a génn ñoom gabar si nag koo xalaat démb daal ñëw na doleel ko wan ko ne nag samedi moom dangaa war a jëm daal wan booy ñang ne ko duma sa moroom mu mel ni ki nag baal mission commando la ko sunu làmb tuddee jàppal yëg li kaay bi ne dem dey géejawaay feesoon na del lak nag moom nee na waa géejawaay dinaa leen andil lii nga xam ne nii daal moo di daru boy ñang dinaa ko wullee wulli daal ba mu nooy loolu mooy ay waxi kii nga xam ne moo di Lac de Guiers numéro 2 démb mu mel ni ki nag yëglikaay bi daal jàpp na ne day demb foo sànni mbàttu daal day tàkk moom Lac daal la mu xam ne day nee na bu jeexalee diggante ak booy Niang bu ñu tàqalikoo moom booy Niang dina xam ne day basi góor doo nga koy bay maanaam daal du moroomam yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey wax ñu ko mu mel ni kii démb moom jàppal organisation ba moom dafa raté sunu làmb nu ko wax ndax nag mbooloo mu bari mbir ma mujj daal mel ni loo xam ne daal dafa débordé yëglikaay bi ñëw na ci mu musique ma tamit kenn fàttewu ko géejawaay daal dem feesoon na dell dell dell yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw di ñu ko wax Balla Gaye numéro 2 gis nañ ko fa waaye jàppal wàllum xeex baak lépp daal ñu nga koy préparé mobilisation ba tamit nar naa am doole lool foo ko takk daal weesu na ko waaye moom Lac de mu ngay gërëm ñii nga xam ne nii ñoom ñooy waa écrit wàllu ga nga xam ne ca la bokk yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di ñu ko wax mel ni ki daal dem moom géejawaay moom ah loo ci mën a dégg daal démb moom ñu nga doon préparer kii nga xam ne ni moo di seen doom ngir nag fas yéene samedi mu jàmmarloo kii nga xam ne ni moo di booy Niang yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw di ñu ko wax leneen loo xam ne tamit jàng nañ ko ci fii nga xam ne nii moo di ci yëglikaay yi mel ni ki nag weekend bi passé moom lamb yi nga xam ne amoon na day li leer ba leer seen seet dagg na mbër yi de laal na leen de sunu lamb ne na jàppal lu toll ci quatre cent cinquante neuf mille francs day jot nañ leen koo dagg ñoom mbër yi nga xam ne bëri nañ ci weekend bi nga xam ne ca la ñu génne keneen koo xam ne moom ca fi kenn boobu la doon bëree muy njaay tin moom mu mel ni ki nag rakki tafaatin ja moom convoqué nañ ko fa nga xam ne mooy ca CNG ba ngir nag mu fas yéene wuyu ji ci ay mbir yoo xam ne daal ñu ngi ko koy toppe ci combat bi doxoon digganteem ak ki nga xam ne moo di Birahim Junior waaye leneen loo xam tamit yëglikaay bi ñëw na ci ci koo xam ne dafa bëri woon ci fi kenn boobu moo di la mu mel ni ki nag moom day fi mu nekk nii mbaadu xale yi dañ koo bëgg a defub jaarukaay sunu làmb xëy tey ñëw di ñu ko wax waaw ñu wane ñu ki nga xam ne moo di la ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb leneen loo xam ne tamit gis nañ ko fii nga xam ne nii moom moo di ci yëglikaay bii nga xam ne nii moo di sunu làmb mu ngi nuy wax ne daal jàppal Adrien Senghor moom ngeel joon ginnaaw juróom-ñetti weer yoo xam ne toog na gañëwu fa dey ñëw na nag am fa ndamam muy ñetteeli ndam ci kaw kii nga xam ne nag moo di duudu saane yëglikaay bii di sunu làmb moo xëy wax nu ko bu nu demee tamit fa nga xam ne mooy ca Leewtoo TV ak Leewtoo point net day fekk nañ fa kii nga xam ne moo di Lac de Guiers numéro mu mel ni ki daal moom fi mu nekk nii day démb gaa yi daal waa Leewtoo point xamal nañu ne day gars yi ñëw nañ yokk ko doole maanaam daal renforcer ko bu baax a baax a baax a baax Coly Faye numéro 2 moom ca Leewtoo point net mu ngay wax ak kii nga xam ne nii day moo di soog lam koy xamal daal mooy nga ñëw ñu bëre ndax nag defoo fi lu ma deful wala nga wax ko mu mel ni ki daal tey loolu moo fi xëyoon ñëw ci yëglikaay yi nga xam ne ni day ñoo yëngatu ci mbirum làmb salaamaaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen bu baax di leen seex di leen jaajëfal ñu ngi koy defee chaque jour rek ñu ñëw ak yéen seen revue de l'arène ginnaaw Babacar defee revue ba pare ñu ñëw si jàngat bi muy nuyu Babacar bu baax Babacar nuyu naa maa ngi lay fay Aïssatou Faye madame Nia maa ngi lay ziar bu baax baax di la nuyu di nuyu internet yi Leewtoo TV yëpp ak fu ñu mën a nekk rek si àddina bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko saaku si ñoo ñu dugg ci waxtaan bi commencé ko open press démb bi nga xam ne nii ginnaaw Boy Niang am na ko démb la dëgër daal di woote fële champion nga biir Géejawaay génn nga yokk ko doole Babacar waaw loolu de mooy li nga xam ne ni moo am démb fa nga xam ne mooy ca Géejawaay comme ni ñu ko wax ni nga ko waxee rek noonu la demoon bërëg démb tamit fa nga xam ne mooy ca Pikine mu mel léegi nag ñoom ñaari mbër yi war a bëri samedi moom wax dëgg yàlla pour man dama naan li waroon seen i mbokk def nañ ko ak seen i àndandoo seen am di jàmm ndax ku ci nekk rek ba nga wootee ña nga ko séqal muy ñu lay jàppaleeg ñëpp ñëw nañu pousser la pour nga am ndam samedi li ci des kon fi mu nekk nii dama naan ci ñoom la dese démb nag gis nañ vraiment mobilisation bu metti tamit am na géejuwaay bu doy waar ñoom Balla Gaye Elton Guy gi Marley Gabar si kenn desul képp kuy mbër daal ñëw nga léegi nag a mooy que ni léegi nag ah li des moom ci ñoom ñaari mbër yi la dese parce que fi mu nekk nii moom ah, waaw fuuree wa dem na këng waxi mag day dem dañ tàlli faw jël dana am incha allah parce que nag combat la boo xam ne daal vraiment combat bu neex a neex la combat bi nga xam tamit sénégalais yàgg nañ koy xaar di d'ici quelques jours ci kàttanu suñu borom dinañ gis arbitre souffle seen diggante ñu bëre. ah ñuy ñaan rek mu déroulé ci bisimilah rahmaani rahim jeex ci alhamdulilah rabil alamin te que le parce que comme li may wax tout rek làmb ji génnul Sénégal daal ñi koy bëri génnuñu Sénégal Pikine ak Géejawaay benn bopp la kenn waru ko xar ñaar nañ ko yemale si cadre sport Aïcha xam ne sport la la dëgër fii la dëkk Boy Niang fii la dëkk ku gañe nga yëkkati sa moroom xam ne yow la yàlla may tey ndam li da nga daan gañe li ci des moom ñu rafetal ko daal di dem tam ba tey ci combat bi Babacar parce que ci wàccaay la Baye Ndiaye nekk ba tax na démb muy ngi woon fële ci arène national daal def li nga xam ne mooy visite bi pour xool nu muy waajalee li nga xam ne mooy jour ba. waaw démb waaye ñun teewoon nañ fa vraiment mu nekkoon loo xam ne tamit ah lu neex la parce que itam loolu mooy yoon fi nga jëm boo fa bëggee dem war nga mën a dem ay sa xool terrain bi noo fay duggee ak nangam sangam ñi fu ñuy jaaree bii lii yooyu yëpp wax na ci démb muy loo xam ne tamit avant première la pour nga yegg ci bés bi parce que. Euh, événement moom soo koy soo koy organiser dafa am avant pendant ay après loolu lépp kon ñu ngi nekkoon ci avant avant ñu actuellement ñu ngi ci avant programme bi ñu koy ñaanal yàlla avant boobu nañu ci dugg ak jàmm mu jeex si jàmm comme li ma wax rek parce que Baye tamit ñëw nag alburax di jéema comme tout le monde waaw loolu nag li ñu ciy wax mooy que ni ñoom daal li nga xam ne nii moom mooy seen warugar wala li ñu bëgg organiser tëral nañ seen ay plan yàlla nañ ko réussir pour samedi mbër yi gagné ci promoteur bi gagné ci se waaw amateur yi gagné Sénégal jëm kanam. waaw noonu la mën ñu dem Babacar Sy face à face combat royal bi tey lay doon fële ca place de la nation place de l'obélisque diggante ki nga xam ne mooy Eumeu Sène ak Modou Lo ginnaaw bañ jàkkaarloowee nag fële ca TFM ba pare. waaw loolu moom day bokkaat ci seen ay acte rek bi yaakaar naa su ma jul mooy war nekk seen ñetteeli jàkkaarloo waaw loolu nag place de l'obélisque ngoon yàlla na fekk ñu football ba gagné nami bi bene ba pare. waaw bu ko defee face à bu day gën a neex rek waaw ñoom itam li ñu dox rek combat la ñuy bëre boo xam ne nii combat royal la. liñ ci xam daal mooy que ni làmb la rek nañ ko yemale si cadre làmb rek man daal mbir yi damay bëgg ay sa tout ñuy jiital cadre sport bi bu ko defee daal lépp day jeex ci jàmm parce que du ñu génn réew mi ah Sénégal rek la ñu nekk kon ngoon yaakaar naa ne ku nekk rek te di amateur wala ngay supporter wala ngay bëggee Modou Lo wala Eumeu Sène woo nañ la fa nga xam ne mooy place de la nation comme ni ko xamee muy obélisque waaw loolu ngoon lay doon incha Babacar ñu dellu ci weekend bi amoon na ay gala mhm. parce que ki nga xam ne mooy Ndiaye Tine moom am na ndam di jubilé mais jubilee moom dafa mel ni gàtt na ci moom parce que dañ ko convoqué fële sa CNG parce que dafa am incident fa amoon samedi te nee nañ loxoom mi ngi ci biir ñu war ko woo ci commission discipline ba war ko entendre. waaw maanaam déglu ko waaw loolu nag li mu li ñu si wax daal mooy que ni ñoom mbër yi suñu leen suñu bëreeti pour man. nañu yem ci cadre bëre bi bañ koo génn parce que saa yoo ko génnee tamit des man mën na la jural ay teq-teq parce que normalement tey li yoon soo bëree ba pare war nga mën a jot sa licence jotaat sa reliquat xam nga dem féete ji sa ndam mais am nga sa ndam ba pare léegi nag ñu di la topp téye sa licence téye sa reliquat loolu kon mooy combat ba jeexagul ah li ñu ci wax nag mooy kani rek CNC moom ñoom ñoo yore làmb ji te mbir mu mu doon itam duñ ko bàyyi mu nekk li ñuy wax anarchie quoi comme li tubaab di wax lu neex waaye def non non non dañ koy organiser teg ko ci aw yoon yow soo ñëwee li la la règle yi may soo ñëwee si bés bi lii ngay def def lii moytu lii moytu lii bu fekkee nag da nga xëtt règle yooyu ba dugg ci leneen lu bokkul ak lañ la doon wax ah faw ñu woo la entendre la pour que xool yow li am lan nga ci am comme responsabilité ak loo ci amul comme responsabilité waaye nag ñu ngi ñaan daal mu mujjee ci jàmm rek parce que moom it xale la te avenir u la quoi Ndiaye Tine hmm. waaw ñu seetaan rek euh, fu convocation bi di mujje ñu toppal leen ko incha allah mais ba tey gala yi tamit euh, bu ñu ci dellu see Babacar gala yi bëri woon na presque quatre gala la woon mais boo xoolee ci ay li fa am ci ay sanctions toll na si quatre cent cinquante neuf mille weekend bi ñu jógee waaw moom lañ leen dagg quoi ci xaalis mooy li ma wax sànq rek maanaam euh, wax ci yoon rek boo wàccee yoon moom faw ñu delloo si la ci yoon kon xay na quatre cent cinquante neuf mille yooyu ñu leen dagg ah xam naa ñàkkul que ni mbër mu si ne rek am na loo def lu yoon di bañ wala retard wala nangam sangam ba tax ñu dagg la xaalis bu mel noonu mais daal loo ci mën a dégg li ma la waxoon la rek lu mu mën a doon rek dañ ko organiser teg ko ci aw yoon pour que ku nekk rek ci règle yi quoi daal di jeexal ak euh, Ngel John ñi nga xam ne keroog ñu Adrien Senghor moo fa gagné ki nga xam ne mooy Doudou saane mu nekk troisième victoire euh, ci kaw kooku di Doudou Sané mais tam Babacar mu nekk victoire am boo xam ne nii après. huit mois bi nga xam ne gëj na ci làmb ndax amoon na fi blessure bu ko euh, tere woon compétir lu yàgg bi mu ñëwee nag signé na première victoire am fële ci arène Adrien Senghor. ñu koy féliciter encore une fois di wax ne que ah, mooy sport ah, comme dafa amoon ay blessure ba taxoon mu toog ñëwaat nag am ndam ci kaw Doudou Sané loolu defe naa xel nangu na ko Ngel Dione moom defe naa tamit li simple bi bokk na si mbër yi nga xam ne ñi ci man la bokk na ci parce que. am amateur yi bëgg nañ ko dana animé bés yi te itam li ko ci war dina ko def waaw kon nag loolu mooy li nga xam ne ni daal moo amoon Adrien Senghor di féliciter Nguel di encourager tamit Doudou Sané moom tamit di wax ne am na méritant ah, parce que vraiment xale la boo xam ne wàllu simple bi bëgg nañ ko bu baax a baax a baax moom Doudou Sané ndax boo génne caal bi def fu bëri da ngay daje ak moom mais su duggee rek dangay gis gis ni ñu koy accueillir kon daal loolu moom am na solo trop Aïcha Babacar lii lañu andiloon ñi nga xam ne ñooy suivre revue de l'arène ñu leen di jox rendez-vous suba mais balaa boobu dañuy gërëm ki nga xam ne mooy Mame Talla Chéri Lébu ci caméra bi Ousmane ci montage bi di gërëm tamit équipe Leewtoo TV bi yëpp bàyyi ñu kenn di nuyu tamit euh, Iba suñu lakkal sonal ñëpp di ko nuyu bu baax di ko ñaanal soxna su baax tamit mais Babacar may souhaité joyeux anniversaire sama doom Khadija Kane doomu ma sama doomu mag di ko wax dundal lu bëree bari yàlla may la gudd fan wér sutura ju bëri xéewal ju baawaan dund ba teral say waajur yëpp incha allah Babacar. amiin amiin ah. kon ñu ngi koy souhaité moom tamit anniversaire bi yàgg a di leen nuyu di nuyu say mbokk yëpp mais mère sugu doom duñ ko fàtte ah maa ngi koy nuyu yaay caat caat maa ngi lay nuyu bu baax a baax caat <laughs> fay di nuyu internet yi Leewtoo TV yëpp ay ah, sa fay di leen ñaanal jàmm te di ko saako ci ñoom comme ni nga ko waxee tamit rek di nuyu gars fu ñu mën a nekk rek ñu ngi leen di nuyu ñu ñuy suivre ñoom Mame Modou Guèye xam nga xam Xaadim jaay ku mu mën a doon rek Ousmane Diop Ndongo Fall ñoom tuuti yaay Sarr xam nga Fatma Fall Bergamo Italie fu waay mën a ne di ñu suivre Khady Rose nuyu nañ la bu baax a baax a baax mais tamit mention spéciale à Lébou Ndiaye waaw démb moom jox nañu ceebu jën benn mbay boo xam ne Aïssa doy na waar léegi léegi la pare teg ci ay zirik xaw ma zirik la xaw ma bu oyof boobu kon Lébou ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di nuyu waa géejawaay gi yëpp ah képp ku ñu suivre daal Aïssatou Faye nuyu nañ la ziar la balu la àq te di la ñaanal jàmm di wax nekk Sénégal daal. yàlla na fi yàlla buur bi def jàmm te may ñu ndam tey encore fois suñu match ak beneen yàlla nañ ko dóor 4-0 pour mën a qualifier dem demi-finale ah olof a ko wax courage jëmale sa kanam mu dël te ay sénégalais la ñu fii la ñu dëkk Aïssatou Faye waaw waaw di joxe rendez-vous suba incha allah